asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci seen ànd ak seen seen youtube tas info ñëwaat na ne yéen ci seen rubrique fàttaliku di fàttaliku ñenn ñi nga xam te ne xamee san na leen ci àdduna bi ñu nekkat ñu nga xam te ne ràññeeku ci ci àdduna bi tey ñu ñëwee ak ci kenn ku nga xamante ni ah, ñenn ñi mën nañ koo fàtte waaye lii di histoire fàttali ko mu di eh, Gabriel Mogne euh, mu nekkoon ko nga xamante ni mi ngi dëkkoon Mozambique euh, nekkoon ku njool lool ndax mi ngi tollan ci deux mètres quarante cinq deux mètres quarante mu di ñaari meetar yu teg ñeent fukk ak juróom euh, mi ngi doon dund ci jeexantal année quatre-vingt <coughs> mi ngi nekkoon booba lom le plus grand du monde moo nekkoon ki sut ci àdduna bi waaw moo sutoon booba ci àdduna bi jamono jooju euh, moom nag ci euh, jamonoy colonisation bi ñoom xam ngeen ni portugais yi ñoo fa newoon euh, moom moom moomu noonu ci la dem <coughs> fële ca Lisbonne ca Portugal euh, fal ko yóbbu ñoom pour booba di ko exposé maanaam di ko teg ci foire yee ya ca aju euh, di ko jàppe ñeneen ñi ci ni kat ki aw mala la wala dara ndax jaaxal na leen lool mu nekk fa jamono ñu mooy ci ak àggam foofu ci Portugal ci atum 1969 mu nekk nag ab objet de curiosité maanaam euh, mbir moo nga xam te ni mbirum luñ ñutu la maanaam mu leen mu doon dañ kumpa ci fépp fu nga xam te ni teg nañ ko fa euh, ñi nga xamante ni ñooy ñi am ay koppar daan ñëw ci moom Euh, di ko yóbbu ci seen yenn événement privé yi maanaam bu ñu amee seeni ndaje di ko fa yóbbu ñeneen ñi di ko ñu koy traité comme animal daal fu leen neex lañ lañu yóbbu fa euh, mu nekk ko xam te euh, booba wër na maanaam balaade na ci maanaam tambaambalu na ci dëkk yu bëree bëri ci Europe Euh, yoo nga xam te ne tamit exposé nañ ko ci foire yi léeg sax ñu koy jàppee aw malaak yu kenn xamul waaye gannaaw indépendance su euh, Mozambique euh, moom mu am nag ay indépendance bi Mozambique bi nga xam te ne am nañ ko ci ab xeex bu nga xam te ne kii def na ko muy Samora Machel Samora Machel ci la ñibbiwaat nag moom moom ci Gabriel ca Mozambique waaye nag ñëwaat na ci Portugal waaw eh, ñaareel bi yoon ci atum 1979 ba mu fa ñëwee nag dañoo ko ne tamit di ko exposé rek ci seen foire yeeg caaju waaw mais ci coulisse li nag ah, fala daanoon waaw ndax doon jéem yëg ci escalier yi <coughs> te loolu mujjul ànd loola war lan eh, ay souci yu rëy ci tànka mi ndax da cee gaañoon booba eh, mu retourné waat tamit eh, ñibbiwaat ci dëkkam Mozambique waaye ñëwaat na Portugal pour dernière fois ci atum 1989 nag boobaat bu mu ñëwaatee ñu continué di ko exposé waaye nag. Hmm, ci atum nag 1990 nag euh, ci la daanuwaat beneen daanuwaat bi waaw ci këram la ko la ko la ko la ko daanoo ndeysaan boobu moo daano bu yéeme ci moom mooy ba nga xam te ne moo ko faat tamit bi mu daanoo foofu ci la gaañu ci atum ci le 4 janvier 1990 ci hôpital Maputo Euh, moom nag booba fekk mi ngi am quarante cinq ans moom nekk na xam xamante ne <clears throat> ak dundam quarante cinq ans gannaaw baagante mi nga xam ne def na ko diggante Mozambique ak fi nga xam ne moo di Portugal. day wane ci jàngat ci ni yàgg nañu jël nit ku ñuul di ko exposé ci ay yëf yu bëree bëri fu ne ñu leen ko fay ñu fay lañ lañee di leen euh, <clears throat> jéem di exposé waaw mu di lu nga xamante ne lu ñaaw la. ndaxte eh, jël nit ku ñuul nit di ko exposé ci naan animal laak yi ci aju eh, nekkul benn yoon loo xam te lu rafet la ci der ci eh, maanaam der bu ñuul maanaam respect ki xam te ne moom la moo war di am ci nit ku ñuul ba tey ñoom booba continuer wu doon di ko sàmm maanaam àq ak yelleef fi doomi aadama lii moo nekkan seen mbokk mbokk yi li nga xam ne mooy seen rubrique fàttaliku ñu doon fàttaliku kooku nga xamante ni moo di Gabriel eh, nekkoon kooku nga xamante ni mi ngi dëkkan fële ca Mozambique eh, fële ca Mozambique te demoon fële ca Portugal ñu ko fay exposé que yi ca beneen yoon dina ñëw yéen ci ñeneen eh, wéy leen di ànd ak yi ñun ci seen seen YouTube tas info ngir lépp lu nga xamante ne mi ngi am ci actualité ngeen man di comme jaa ngeen jëf wéy leen di abonné ci seen seen YouTube tas info.